jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo talaata bu jot ci waxtu bi seen magazine Rofo seen magazine Rofo di leen wax asalaamaaleykum euh, di ñaan yàlla bi borom jàmm doolu ñu jàmm doolu ñu sutura faj aajo yi yàlla mi nga xam ne euh, def fi nga xam ne koor gi toll na fi tey di ñaan yàlla jeexal ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci kattanu yàlla mi nga xam ne moo ñu mayoon kàttan ñu woor ba yegg si fii tey di ñaan yàlla rek di ànd ak yéen di leen gunge leen gunge ci li nga xam ne mooy passe vacances bi nga xam ne Euh, boobu léegi ñu ngi leen koy indil ci wàlli làmb wàlli làmb ji nag xam nga euh, boobook léegi ñu ngi leen di indil ay waxtaan yoo xam ne jëm na ci ay borom xam-xam yoo xam ne euh, dañuy waxtaan ci làmb pour nit ñi kën a mën a dellusiwaat ci làmb ji ak fii làmb tollu tey mbokku téléspectateurs yi tey seen magazine Roffo di ñëw ci loo xam ne liñ koy ubbee mooy tiis gi dal làmb ji bi dal làmb ji mooy kan Cheikhou Diène kan moo doon Cheikhou Diène mooy xale bi nga xam ne moo jóge woon Joal vers les années 2003 ñëw doon champion bu mag jël drapeau chef de l'état demoon campagne Burkina Faso doon champion d'Afrique di leen fàttali ne campagne boobu mi ngi ci àndoon ak Youssou Ndour euh, nekkoon ñoom ñaar ñëpp nekkoon écurie Ndakaaru euh, Cheikhou Diène doonoon champion boo xam ne euh, ci catégorie 100 kilos la doon tiré ci équipe nationale di champion d'Afrique de drapeau chef de l'état def fi ay combat bari fii am fi ay 10 victoires Ah, te booy xool Cheikhou Diène def itam bariwul euh, booy xool euh, grand combat bi nga xam ne moom la ko gënoon ràññee mooy contre Tchèque euh, bi nga xam ne moom la ñu tëggoon di stade Iba Mar Diop te Manga tëggoon ko ah, booy xool seexu Diène ci jàpp li nga xam ne mooy prolongation ci làmb mook Modou Aw ñoo ko njëkk bëri ci Tëngéej yooyu yëpp bokk na ci takk jàpp ci Cheikhou Diène ci jaar-jaaram mu doon xale boo xam ne jom la doon demee fulla la doon demee ak ngor ñett yi ñoo tënkoon Cheikhou Diène moo tax ci noonu la demee euh, kon dañuy ñëw euh, xool jàkkaarloo bi nga xam ne mujj na ko jàkkaarloo ak euh, Malal Ndiaye ci kàddu gi mu mujj wax ñu barkelu ci kàddoom ci barke weeru koor gi di ko ci ñaanal yàlla xare ko àjjana ñu dem jàkkaarloo Cheikhou jën bi muy mujj wax ci làmb ak jàkkaarloo ak Malal Ndiaye. ñëpp question ne dama dama nar a arab blanche moo tax ma jël ma lan. waaw may ko may ko mu ñëw. non danga may ko mu ñëw rek. sunu làmb dama cee gis dang na malal adversaire potentiel loolu nga wax. dëggalal loolu ñoom seen yi yow yow yow mënoo tey. voilà ñëwal Cheikhou ñëwal da namante rek. xam seen yaramay xasan. yow ay Jeux olympiques ak ay marocain nga fay kii ñooñu xamuñu làmb. ah xamuñu làmb maa yow parce que yow tukulóor nga micro bi micro micro bi waaw. ah micro bi. lutte avec frappe wax. Mhm. du du lutte mhm. dangay taxaw yëkkati say loxo ñuy xeex di bëre mais fële jeux olympique loolu ay takk dàll la mhm. ay sol ay gilet yooyu yooyu lamb yi ñoo bokkul te di ñaan yàlla nag yàlla may ma ndaw si sa kaw. waaw eh, jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne. Euh, déglu ngeen dem si yàlla Cheikhou Diène mook Malal Ndiaye moom nga xam ne euh, euh, mi ngi woon ci Jeux olympiques yi ñu ngi koy félicité ñu ngi koy félicité di ko wax ñu préparé waat ko rek ci yeneen Jeux yoo xam ne Sénégal mën na ci teew di ko félicité ndax tey am na fu mu yóbbu turu Sénégal parce que bu ñu taxawee ba foofu drapeau national ñu yëkkati ko hymne national bi ñu def ko ci Jeux olympiques yi kon Malal aussi ñu ngi ko koy jaajëfee aussi di ko di ko jaal Cheikhou Diène tey ci palmarèsam dañu naan kan la mujj bëreel ku mu mujjee bëreel ñu ne Malal Ndiaye la mujj bëreel xam naa ne Malal nouvelle euh, lii nouvelle bi euh, dina ko metti parce que moo mujj bëre ak Cheikhou Diène kon euh, ci loolu nag ku ne xam na ne digganteem am na fu mu jaar am na xale boo xam ne daanaka ci loxo loxo loxo Cheikhou Diène la jaar ci préparé ko ci Euh, jox ko moral ba mu nekk mbër gi mu doon tey euh, muy kan di Bismi Ndoye euh, nañ ko déglu jaar jaaro ma Cheikhou Diène man dama defoon benn accident. bu métti moo waral nii sa sam est-ce ma tëdd deux mois. li ma tëdd mu ne ma mbër gaan instant yi dama feebar damay dem. ma ne ko léegi dama si alsan moom la mu si alsan ci la ko am lu mu ko jox mu dem préparer Joal ma tëdd. woo ko nekk mbër foo nekk mu ne ma maa tane. fekk boobu sonn na après si la ma Edouard Dimle joor woo nee ma mbër sawaay sonn na ma ne ko nag ah man tëddoon naa la mais dinaa jóg ma ne ko léegi nañ jël ambulance bi ñu évacué ko mu ne ma ambulance bi dañ koy fay ma ne ko na ñëw ñu fay ko est-ce comprendre ba ambulance bi ñëwee hôpital Fann boobu ñëwee hôpital fan ma ñëw ñu indi Cheikhou ma xool Cheikhou mënuma ko xool affaire xaw ma lu may nuru ma ne comme maa nekk nii jabaram ñëw si ak benn frère bu ñuy wax Tamala ak benn nijaayam ak ambulance bi jabar ji boot benn doom bi téye benn doom bi ñi daam am na benn médecin bu ñu wax Assane boo xam ne waa Joal la ba Assane Cissé ñëwee nee ma nag kii sawaay moom feebar bi moom ñi dañ ko war a faj comprendre mu ne Cheikh fu mu nekkoon ba léegi mu ne ko ah il paraît comme affaire yi damoon na bay ji doy waar mm-hmm. mu ne xaaral ma dem Joal seeti mboq yi mu dem nag feebar bi gën a empiré wu ñu ko doon yóbbu hôpital di di xool tamit si beneen façon bi. si ni ma wax. ñu dem affaire yi nag far nag ba ñuy ñëwee ñu ne ñu def leen rajo bi. Mm-hmm. ñu def rajo bi xool si xool si dënn bi sentir ne lii problème mu xol la. Mm-hmm. comprendre parce que feebar na xam nga sonn na dën te amit xam nga dernière minute yi mu amee hôpital moom ko gisee man dama mu ne ma bis. ma ne ko mbër gaan lii du dara da nga si jéem. wax naa ci dernier wax naa man si dernier minute. li ma mujjee wax bëru après bañ jógee fan ñi koy yóbbu Dantec boobu la ma yoroon sam poos yëpp naa ko. Mhm. mujj gi ma jaaxle. ma woo Alsaan Alsaan ne ma ak mbër kii nañ ko jël en charge li si war nañ ko def. Mhm. Assane Cissé ne ma non bàyyi dinaa def sam participation. Mhm. ma woo Kayri Kayri ne ma tamit amul problème dinaa préparer ñëw. ñu yóbbu ko Dantec bañ ko yóbbee Dantec boobu aspiré nañu 2 litres d'eau yu jénn si dënn bi. 2 litres yoo xam ne jénne nañ ko si dënd bi boobu jaaxle naa nag ma ne Kayre instant yii Cheikh xam naa ne lii ko dal nii. metti na te foog ay moyens man moom naa si jàpp comme ñoo bokk écrit. léegi wax naa ak man. ba mu waxee mu ne ma waxee mbër li du dara. léegi mi ngi ngi ci jom ñu ne mbër lii du dara dem si jéen man lii sama problème rek mooy sama doom man ko loolu yëpp bu ko def problème ñoo ànd ba fii mhm. mu neex mu naka te bés boo bés tôt ou tard mhm. di nga di nga jug si lii te di nga nekk en pleine forme loolu maa la ko wax mhm. mu ne tekk sëgg ma xam na instant yi mbër sonn na trop ji dem yóbbu ko si Cissé def tous les moyens ñu évacuer ko Dantec ma ne ko léegi ma waa médecin bi ne ko léegi nu may def pour ñëw léegi ma ñëw pour ñu doo analyser mu ne ma noonu instant yi bàyyi mu noppalu ko ba suba ñi def analyse yi war ak yëpp ma woo Kaare ne ko Kaare instant yi affaire bi jaaxal xam naa ne foog soutien mm-hmm. boobu yëg naa ne arro mii foofu xaw ma arro am dantek mm-hmm. ma ne xaaral moo woo moo Sarr ko pour jéem ko wax ne ko am na mbër bu sonn Cheikh sonn na xama instant yi wax ko Kayre Kayre ne ma am problème suba ñu dem fa. ma woo ko jot ma ko ma envoyé message si guddi gi ñu ne ma Cheikhou génn na àdduna. ñu ne ma Cheikhou na àdduna. ci guddi gi waaw ay booru waaw ba mu ay 9h et quelque yooyu. benn ma ko waxee moo frère bi ne ko amul problème fii lu ci war yëpp dinañ ko def yóbbu ko ba Joal leen ñi mboqam ñi kii ko par la suite ñi ñëw dem Dantec toppatoo certificat décès bi woo suñ benn waaye bu nekkoon suñu équipe bi ku ñuy wax njaay Sapeur ñu sang ko defar ko comme il le faut waaw ak beneen nijaayam bu fa nekkoon ak suñ beneen ko parce que man sama xol néegu woon pour sang ñu dugg toppatoo ko comme il le faut yóbbu ko dañ ko yóbbee nag xam jox ko ay mboqam ñu dégg ko xam man surtout tamit si affaire bi li ma si gën a yéem rek mooy des fois dama naan ñu bëgg nañu yàllaa ñu nattoo làmb mais làmb boo si amul ay cent millions amoo avenir parce que di nga feebar boo yoruloo fajoo amoo IPM amoo dara yaa ngi si erreur te ñun mbëri ku nekk dinañu jooy jox ñu koo si joxul mu mer te boo feebaree yàq sa njaboot ak sa waa kër famille kay wéetu parce que li ma gis nii rek dafa doy exemple si mbëri yëpp tam en plus tamit buggoon naa tamit mbëri yi ñu wutal leen ay foo xam ne sax ñu am licence ñiy faju parce que loolu kii na trop parce que boo xoolee fii mun naa ne dëkk bi dëkk jullit la mais bëri na puukare fa ñu defee seen alal ak fa ñu ko warul def du benn parce que damay xool yéen ak waroon na am ay aide sociale yoo xam ne pour les sportif wala soit xama lu bëri waroon na si mën a am après. mbokk yi waaw si parce que ku si mel ni Alioune Seye 2 waa foofu ñoom Mamadou Ndiaye l'an 2000 mbëru Joal yëpp gis surtout Manga 2 Manga 2 Manga 2 wax dëgg yàlla moom Manga taxaw na taxawaay bu rafet ba ba ñu jógee levée du corps ba Dantec kii di promoteur boobu ñu Abdou Fall gis naa fa ñoom du jaan jekkoo xama Euh, suñu président écrit Ablaye Badiane waa Soumbédioune tamit gis naa leen fa xama ak Khalifa waa g ba démb sa ñoom nañu jóge dam Joal jaale ko dam kër jabaram jaale ko comprendre gis naa tamit waa CNG tamit ak tamit sa def surtout Manga 2 tamit am na taxawaay bu rëy rëy bu mag boo xam ne moom man dama koy remercier parce que du ma ne dëju Soumbédioune dama naan dëju monde lutte la mm-hmm. parce que Manga man c'était la première fois ñu taxaw waxtaan mais taxawu nañu si comme il le faut ñu sori que ñu jege moo tax awma loo xam ne dama ko si wax naa ko sa mais c'est parce que mun si biir expliqué na ma ne sa mboqam la mboqam dañoo dëkk Joal ba pare ñiy waxante mun ne ma suñ biir sama mboq la moo tax awma loo xam ne dama ko si insisté si affaire bi xam nga man li may tëje benn affaire mooy li may wax daal surtout suñu ministre sport bi kii nañu jéemal de xoolaat tamit ay jumtukaay yoo xam ne si mbër yi wàcc liggéey wala tamit ak assurance su euh, lutti assurance su mbër bëggoon naa tamit ñi leeral ñu si euh, pour xam assurance bi. pour mbër mu feebaree ndax am na am na lu mu ñuy parce que communication peut-être mun na manqué des. am na mbër yu fi gaañu kenn xamul tamit. Ah, yéen waaw nan la war a fajoo parce que circonstance yëpp du lépp ñuy wax biir télévision. comprendre mais. am na yoo xam ne tamit war nañ ci mën a xool soit que ñu bien vrai que ñu ngi dagg mbëri d'accord bu dëj ñëwee CNG wax dëgg yàlla ay jullit nañ dañuy ñëw jaale mbëri jàppale mais pourtant de sunu maay man-man famille sport war nañu xool que ku dëj ñi jaale la yomb na waroon nañu mën a xool balaa ñu naan dañ koy la ak rob yi wala di ko seeti ka jaale ka ka jaxal war na nañu xool ay potentiel yoo xam ne comme ni ñu gars yi defee insuffisance